bu dee gan nga ci suñu kër gi di Faaida TV bala ngay seetaan vidéo bi ñu ngi sàkku ci yow nga abonné te bul fàttee bés ci cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ci kër gi nga mën cee jot bul fàttee zem tey partager suñuy vidéo ak Faaida TV njariñ kese la leen di jural acca asalaamaaleykum ñoo ngi fii ci Thiès marché central ci Touba xewul ñu def benn innovation bu mag a mag a mag a mag a mag fii ci marché central dend ak Senelec bi dend ak euh, pharmacie Xaadim ñoo ngi nii nag di place bu bees tàq boo xam dañ ko ubbi ñu leen di présenter produit yi ànd ak sëñ Matar ay ventilateur la original yoo xamante ni original la baax wax dëgg yàlla am na garanti am na lépp kon sëñ mataar mën nga ñoo topp ñu dugg ci biir daal lay présenter bagage yi. li ay télé écran plat la am na 32 pouche vraiment marque originale marque yi kenn mosu koo gis fii rek la am Touba xéwal dañ lay jaay defal la facture garantie la ko amul fenn fulul Touba xéwal 32 pouche yaa ngi nii ñoo nekk nii 43 yaa ngi nii. am na 55 am na 65 pouces am na lépp loo xamante ni rek bëgg nga ko képp lu bëgg lu baax rek ñëwal fii ci Touba xewal ñu ànd ceek ceeg euh, Matar sunu rak sunu xarit. kon ñoo ngi fii ci Touba xewal ñu ubbi place bu bees tàq kon ñu dem présenter leen produit yi quoi. waaw ku ne xam na ni bu njëkk la nga daan dem ba dakaar di commandé ay bagages léegi nag amatu fi soo bëggee bagage yu baax te dëgër te wóor la ngay ñëw fii ci Touba xéwal mu nekk place bu bees tàq boo xamante ni ku yokk cere dolli ñeex yaatal ko gérant bi di Dame Sarr ñu ngi leen di di leen ziar yéen ñëpp nag micro onde yaa ngi nii cuisinière yaa ngi nii mais ñu présenté leen produit yu baax yi kon yéen ki mbokki clients yi cuisinière 4 feux yaa ngi nii 6 yaa ngi nii cinq feu yaa ngi nii marque boo bëgg nag am na fii ci Touba xéwal suñu jugee foofu sëñ Matar ñu daal di daw ñëw fii nga xamante ni nag moom mooy Touba xewal nga xamante ni su ñuy jaay day baax am garanti grand bi di dem fu sore fu sore sori pour bëgg citoyen am bagage bu baax li ay machine à laver la ku ne xam na ni Sénégal machine à laver na fi soo ko bëggee bala nga ko am la nga dem ba dakaar léegi nag jaratul dem dakaar la ngay ñëw fii nga xamante ni mooy Touba xéwal am na machine à laver 7 kilos Hashtag am na machine à laver 8 kilos am na machine à laver 10 kilos am na machine à laver 12 kilos am na 9 kilos encore am na 7 kilos encore machine à laver yi ba tey am na yoo xamante ni portatif la bu la neexee nga dugal ko sa néeg wala sa foo la neex sa kër rek mën nga faa taxaw daal ko fay fóote ñoo nekkaat nii ba léegi kii nag mooy cuisinière yi nga xamante ni six feuilles la nga xamante ni dafa jafe lépp mu ngi amee fii ci Touba xewal ku ne xam na ne nag ah Touba xewal place la bu nekk marché centrale ñuy jaay lu baax am garantie wóor gérant ba di Dame Sarr kon ñu ngi nii ci Touba xewal yéen mbokki Thiès mbokki Sénégal mbokki àdduna ku bëggati bagage bu baax la ngay ñëw fii ci Thiès marché centrale gérant bi di Dame Sarr table à manger yaa ngi nii ku ne xam ne ni table à manger lu am solo la ci kër mooy ni quatre place la kon sëñ Matar nga topp ñu ñu wan la yeneen produit yi quoi yii moom ay télévision la marque Hashtag 30 32 pouces télé yu baax dëgër am garanti ku ne xam na ne Smark TV Samsung ñoo ngi nii télé bu baax a baax 65 pouces kenn dematul ba Dakar wala ngay dem Ndar wala ngay du commandé ay Europe yooyu lépp loo bëgg boo ñëwee Touba xéwal am na fi. ventilateur Ashtec Deska yaa tout lépp am na fi bagage yaa ngi nii waaw ku ne xam na ni Touba xéwal daal moo def ñëw fii def lu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw ventilateur yaa ngi nii day jaay en gros day jaay détail lii ay machine la. pour kafe ku ne xam ne kenn seggatul waa nga dem di saaf wala dara la ngay ñëw fii rek dóor mu daanu waaw kon sëñ Matar matelas yaa ngi nii matelas yi ku ci tëdd dañ la koy garanti matelas yi garanti bi 5 la baax dëgër am qualité te fu la neex yóbbu dañ lay jaay garanti la. une fois ci showroom bu bees bi nga xamante ni dafa ubbi barki démb mu ngi tudd Touba xewal nekk fii ci tali bi nga xamante ni moo jëm gaar ba dend ak pharmacie Xaadim dend police ginnaaw police centrale kenn dematul nag fenn lépp loo bëgg la nga ñëw fii Touba xewal soo ñëwee yàlla sunu borom dogal na am na fi. frigo yi nag frigo yi koo xool xam ne frigo yi original la sunu tons sunu xarit moo dem ba extérieur commandé ko fa indi ko fi li pour glace la. kenn jaratul ngay dem ba Europe di commandé wala Chine wala Dubaï lépp loo bëggati ci bagage yi frigo yaa ngi nii pour glace am na 400 litres am na 200 litres am na 600 litres kon sama waa yi. waaw ku bëgg lu hashtag la garantie deux ans ku bëgg rek ñëwul fii Touba xéwal nga ñëw ñu xool salon yi. sëñ Matar lii moom ay salon la am na six place am na huit places am na cinq place am na pour studio am na pour euh, pour am na pour néeg am na pour lépp am na ay tête à tête lii la trois place am na canapé deux places am na cinq place am na six am na huit. kon képp koo xamante ni bëgg nga salon bu baax dëgër wóor ñëwal fii fan ñëwal fii ci Touba xewal Touba Xéwal nag yamul foofu dana la indil ay frigo side by side yu mucc ay yoo xamante ni yu bees tàq la dadu du dara ci courant frigo yi ku ñëw fii am na marque Beko am na Hashtag toute marque am na Samsung LG lépp frigo bépp frigo boo bëgg rek te mu am garante rek boo ñëwee fii ci Touba Xéwal. dinañ la koy wutal gérant bi di Dame saar fii ci Touba xewal am na ay micro onde micro onde yoo xamante ni grand bi dafa dem ba extérieur indi ko soo xoolee micro onde yi dafa ànd ak four kenn tàngalatul ci ay gaz mu wala dara da ngay ñëw ba fii rek Touba xewal sunu borom defal la fi jàmm. sëñ Matar ba tey ñu ngi ci micro onde yi yow moom xam naa ne après soxna si day ñëw fàggul la bi rek di la tàngalal ganaar yeeg yooyu. frigo side by side Samsung am na fi. boo xamante ne ndox mu sedd mi fii lay génnee waaw la ngay bës rek sa ndox mu sedd génn boo soxlaa ndox mu tàng mu génn loolu amul fenn nag fudul dul Touba xéwal frigo yaa ngi nii commune yi yéen ñi ngeen xamante ne ñoo ngi waajal tabaski kenn sonnatul wala ngay dénkaane loo am boo ñëwee Touba xéwal am nga ci frigo yi ba tey micro-ondes yaa ngi ni Hashtag Hashtag ku ne xam na ni marque originale la représentant baa ngi fii dakaar kon xam ngeen nii Touba xéwal lépp lu muy jaay rek fu leer la ko teg quoi ku ñu la jaay boo amee benn jafe-jafe la ngay ñëwaat ñu changé la ko kon Touba xéwal li muy jaay xam na fi fu baax fu mu koy jëlee. side by side yaa ngi nii yéen ñi nga xamante ne namoon ngeen side by side te bëggu leen sonn bëggu leen seen njaboot sonn side by side yaa ngi nii original la waaw gis nga ko nii quatre portes la am yi mooy side by side side by side a ngi nii loo ci def ci ndugu yàpp jën ndox yaa side by side fii nag la amee amul fenn leen lu ñu leen jaay fudul fii dañ leen di nax ku ne xam na ne dëkk bi wóoratul te sàcc si dañoo bari te mën ngaa bàyyi sa place dem noonu dem ci jàkka ji wala jumaa ji wala nga dem mariage wala dara caméra surveillance yaa ngi nii yu mucc ay am na avec fil am na sans fil caméra surveillance yëpp foo mën a nekk rek la ngay bu la neexee nga euh, coloniser ko ak sa téléphone lépp loo xamante ni rek xew na fi da koy gis fa nga nekk ak foo mën a nekk ci àdduna bi kon fii rek la affaire yi baaxee kii fontaine la fontaine nag day indi ndox mu tàgg di indi ndox mu sedd am na toute marque marque boo bëgg am na fi fontaine prix yi abordable lañ la koy jaay kon sëñ Matar ñu daw lii nag frigo side by side la mais pour supermarché la wala boutique pour supermarché wala boutique frigo vitrine yaa ngi nii pour boutique la wala supermarché wala neex soow képp koo xamante ne da bëgg jaay sa produit te bëgg mu feeñ boo ñëwee fii ci Touba xéwal boo ñëwee nañ la jaay frigo yu baax marque yu baax garanti la ko frigo yaa ngi nii. lii lépp ay frigo la lii lépp ay frigo la ah gis nga nag de dañoo xam ne carrément am na ñoo xamante ni yàlla jox jox na leen mais am na ñoo xam ne yàlla da na a ñamal. moo tax mu indil leen frigo baar yoo xamante ni ay mini baar la frigo yu ndaw a ndaw a ndaw yoo xamante ni pour célibataires yi nga xamante ni ñoom moom seen bopp rek a leen ñor kon firi seen i am na. congélateur yi nga xamante ni vertical lañ koy wax moo nekk nii congélateur vertical sept sept sept trois la incha allahu rabi ku yàlla dogal rek nga bëgg boo ñëwee fii Touba xewal frigo yaa ngi nii Matar vertical yaa ngi nii lépp ay vertical la ki ay combiné la pour waañ la cuisine ay combiné am na marque yëpp frigo bar yaa ngi nii ku ne xam na ni frigo baar kenn dematul di ah, jënd ndox mu sedd wala ngay jënd glace boo ñëwee fii ci Touba xewal bagage boo bëgg am na fi ci kattanu yàlla frigo baar yaa ngi nii lépp ay frigo baar la kon sëñ Matar ñu dem ñu topp ñu. encore une fois ñu ngi fii ci Touba xewal Touba bëggul benn Cees waa génn di dem di wuti leneen feneen armoire boo bëgg armoire boo bëgg am na fi ku ne xam na ne armoire yi armoire yi mucc ay la boo amatee sa bagage bañ mu réer wala bañ mu saaw. wala nga am say document bañ mu réer wala bañ mu saaw boo ñëwee wax sàkkoo ci armoire yi dañ la koy jaayee prix en gros dañ la koy jaayee prix détail lépp loo am rek boo ñëwee fii ci Touba xewal incha allahu rabi li nga bëgg ni nga ko am. en même temps nag am na ay chambre à coucher yoo xamante ni huit am na six armoire am na six battant am na huit battant am na lal normal am na double lii lépp loo bëgg rek jaratul ngay dem ba Dakar wala nga koy commandé Europe wala nga koy commandé fenn boo ñëwee fii ci Touba xewal loo bëgg rek am na fi. voilà. armoire yi ba tey ñoo nekk nii sëñ Matar lii moom yéen yi nga xam ne ngeen yor ay bureau bañ seeni bagaas bagage saaw wala ngeen yor seeni i matériel bañ mu saaw wala mu tasaaroo armoire yaa ngi nii am na siège bureau am na lépp. kon sëñ Matar ñu leen di xamal ni carrément képp ku bëgg lu baax ñëwal fii nga xamante ni mooy Touba xéwal fii la lépp di baaxee fii la lépp di leere fii la lépp di wóore. télé bii nag ku ko xool xam ni tele bii di como parce que Smart TV Smart TV ko dégg xam ni télé yi léegi day connecté wu par internet di connecté wu par wifi mooy Smart TV hashtag 55 pouces waaw 55 pouces la waaw. am na ay table bureau yoo xamante ni yu mucc ay am na ay lal am na ay salon lépp loo xamante ni matériel la bu baax rek boo ñëwee fii ci Touba xewul la nga koy am kon nag sama waa ji ñu dem ci le grand gérant nga xamante ni moo yor affaire euro yeeg CFA yi di ko weccee te wax dëgg yàlla ku mu wecc dooni sama xaalis manqué na mu wóor jub teg ko ci ay mbiram ci yoon muy alaaji Dame saar mu baax mi. nangu naa ko ko mag waaye nangu ma ko ko ëpp jom muy la grand gérant Dame Sarr nee naa Sénégal réew mi ku fi gënul gënoo ko barke Seydina Mouhamed baax ris gën bari valeur am jom am fula nangoo liggéey ñëpp fonk ko respecté ko loolu nag nangu naa ko mag fuuf waaye nangu ma ko ëpp jom nangu ma ko ko dàqal liggéey nangu ma ko gën a jub kon ñoo ngi fii ci gérant bi ñu koy wax alaaji Dame Sarr bu baax mi bi ñu defee suñu tournée ba pare dañu ñëw fii ci nga xamante ni moom mooy Dame saar di sama xarit di sama doomu nday alaaji Dame moom mooy gérant fii nga xamante ni mooy Touba képp koo xamante ni yor nga dollar wala nga yor lépp xaalis boo xamante ni yor nga ko rek te nga bëgg a wecceeku boo ñëwee fii la ko wecc wecc bu jaar yoon te incha allahu rabi du lekk sa benn dërëm mu ngi tudd Alaaji Dam saar nekk fii ci Touba xewal di gérant bi nangu nee naa nangu naa ku ko mag nangu naa ku ko ku ko ëppi at waaye nanguma ma ko ëpp jom nangu ma ku ko ëpp fulla nangu ma fayda muy sama waa ji alaaji daam saara ngi nii ñaari question rek lañ lay posé yoo xamante ni mënta ñàkk parce que olof dani ku yokkul yaa wàññi te yow la ngaa yokk te lii ngay def lépp Cees a tax nga di ko def benn message bu ndaw rek nga woo say client ak say xarit ak say am di jàmm woo waa Thiès gépp kon daam ñu ngi lay nuyu baax a baax a baax. grand Youssou maa lay fay baax na def waa Touba Xewël nag moom dafay ñëw pour nekkal waa Thiès daal ci indi leen matériel bu baax. bu garant ci prix yi xéwale nag prix yomb yow sax war nga cee xam dara ah. ndax di nga jàppee waa Touba Xewël yàgg na te boobaa léegi yaa ngi ñëw yaa ngi indi ay clients kon daal mu gudd mu gàtt may Touba Xéwél moom Ceesuwaay la fi nekkal jërëtul kenn ju jógee ji déplacé dem ba Dakar lu bëgg rek ma nañ koo am fii ci Touba Xéwél euh, matériel électronique bu bàyyiwuñ dara yëpp rek ci prix bu yomb prix bu baax te aussi buñ la ko jaayee tamit dun la bàyyi matériel bu amee problème ñun ñooy déplacé wu tout daal lu ci war ñoo koy def di woo Ceesuwaay yëpp daal ñu ñëw. voilà di fay tàgguwaat Touba merci beaucoup monsieur Youssou Ndiaye. waaw kooku mooy El Hadj Dame le grand gérant waa ju baax risque gën bari valeur xam naa kon ñu àgg ci biir rek jëlaat beneen séquence bu ndaw rek pour nga xamante ni mooy sunu nijaay ki nga xamante ni mooy indi bagage yi moom mu am lu ñu sànni rek. ñoo ngi fii ci Touba xewal yaakaar sunu nijaay sunu xarit ki nga xamante ni bëggul ceesuwaay manqué dara ki nga xamante ni bëggul ceesuwaay jooy dara. su ko neexoon li mu am mu yemale ko ci boppam ak njabootam mais dañuy déedéet dama bëgg fii ma nekk ci tuub senegal ma liggéeyal sama réew te olof danaan ko yokkul yaa wàññi. te ku xam ni ku ko xool démb xool ko tey xam ni dafa yokk mais wu li ko ko may nag mooy jubam ak nangoo liggéeyam ak fullaam ak faydaam ak xam lim bëgg ak yërëm population bi. parce que tamit bu ko neexoon muy seeral bagage yi ah, parce que ñun ci marché bi lañ dëkk ci dëkk bi lañ dëkk mais lépp loo xamante ni rek bëgg nga ko muy bagage soo ñëwee fii ci Touba xéwal dala koy jaay ba pare li ci gën a neex mooy du la bàyyi nga dem dalay jaay topp la ba nga li nga bëgg mu am ko yàlla dogal nag place bu macha allah bi fii di Touba xéwal mu yaatal ko ba ñëpp xaj ci kenn dem namatul dara ndax moom mu tudd Abdoulaye di sunu nijaay kon ñu lay wax sunu nijaay yàlla na yàlla yokk say xéwal defal la sutura defal la teraanga Touba xéwal gi nga ñu taxawalal waa cees yaakaar gi nga am ci cees am ko ci Sénégal am ko ci àdduna bi yàlla bu sa yaakaar tas nangu naa nag ku la mag mais ku la gën ak ëpp la jom nanguwuma ko ndax lii ragal mënu ko ku ñàkk jom mënu ko ku yaafus mënu ko kon ñu ngi lay wax lan ngay wax say client ak nan nga def ba góorgóorlu ba nga xamante ni bëgg nga ko satisfaire say client Cheikh Abdoulaye ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay fay di la kontaan ci teewaay bi di la wax tamit ni la li nga wax yëpp nag dëgg la sax waaye kenn mënul dara waaye man rek daam ñu ko ñu ko jàppale. waaw ndax client moom ak euh, ki koy jaay ñu ñaar ñooy bokk position ki jaay mënut a ñàkk ki jënd mais ku jënd mënut a ñàkk kuy jaay kon kuy jaay bu avancé ñi jënd la jëndkat yi ñoo ko may kon mu am na ko sant jëndkat yi. kon daal jaaykat bu nekk maa ngi koy sant mu respecté ak ñaanam te bàyyi leen xel fonk leen te xam ni boo amee bagage bagage bi dem ñoom la soo amee bagage bagage bi tamit ñu tagg ko ci kiyaan yi la moom nag na fexe góorgóor tamit moom di indi lu baax leen jaay lu baax topp leen ko ñu ko waxee leen topp ba duñu am leen luy loolu dara sax nit dafa war a euh, maanaam mooy tëni ko àq mooy tëni ko àq surtout jaay xam nga jaay confiance la ki jënd ci yow dafa la am dafa la wóolu dafa ñëw ci wóolu la am ku ñëw du xam bi jënd lan la kooku danga ko war danga ko war laabiré waaw wax ko li baax moom laaj ko laaj yu bari sax li bëgg ak ni mu ko bëggee ak la ko bëggee lu mel ni kirim fi ne kirim lii di bëgg di kirim laa bëgg te xam nga ni dafa am ay normes néeg bu ndaw ak saal bu nekk dafa war a dem anniversaire wala simple moom du ci xam dara yaa koy leer la lépp buy consommer courant bari ak bu dul consommer courant bari moom du ko xam am ñu ko xam am ko xamul léegi bu ñëwee da nga ko war a leeralal moom nag mooy xool lu ko lu poosam attan ak lu man mu jënd ko waaye yow yow commerçant bi amoo droit mu ñëw rek nga jaay ko mu dem ndax loolu dañ da koy laaj sa responsabilité ndax ku doran yi ndax borom nekk day laaj li ma dénkoon noo ko woon commerçant bi nag dañ koo dénk war sàmm li muy liggéey ah set diggante ak yàlla bañ a xool rek euh, bénéfice wala loolu kese yam ci waaw ah, waaye nag nga xool sa diggante yàlla daal client bi ñu nga dimbali ko fexe ba am li mu te doo ko lor boo amee problème ci la la mu ji noonu bu la woowee téléphone nga wuyu ko wax ak moom jàppale ko ci ba mu amaat li mu su fekkee woon tamit nga topp ba mu bëgg loolu nga war def daal ci nekk ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah sunu soxna si nga xamante ni moom fii la nekk ci place bi nekk jigéen ju baax tamit gu nangoo liggéey ku yiw ku yaatu mooy mënta ñàkk mu sànni ci ay kàddu rek kon sama waa ji asalaamaaleykum sunu soxna sunu xarit morom mbind mi moo ngi nii de ak a wóor <laughs> waa ñoo ngi fi Touba xéewal yow nga bokk ci gérante yi kon bu ñu ñëwee Touba xéwal poser gars yi question il fallait ñu poser waale ay question di la jox kàddu gi rek nga waxtaan ak say cliente ak say client di la wax nan nga gisee Touba xéwal ak nan nga gisee liggéey bi nan lay demee. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen nuyu di leen ziar di rafetlu liggéey bi bu baax a baax macha allah di gërëm itam suñuy cliente ci confiance bi di leen wax ni kontaan nañ ci bu baax a baax. waaw di yokk cere dooli ñeex rek waaw di gërëm itam suñu patron bu baax a baax ndax jàppewuñu ay ay liggéeykat ku ñu fonk la ku ñu respecte la te ni muy liggéeyee suñu xel dal na ci ndax bëggul ko nax client bëggul ko ko wax lu amul bëggul même boo ñëwee te xamoo ci li ngay jënd xamoo ko sax keroog la la gën a mën a defal lu baax keroog la la gën a mën a wàññi keroog la la gën a mën a comprendre waaw ndax li muy liggéey da ciy sóoraale yàlla baax a baax loolu yaakaar naa ne lu jafe la ci commercial yi di bàyyi yàlla xel waaw Touba Xéwël moom ku fi ñëw yaakaar naa duñ la nax duñ la nax duñ la jaay lu cher dina la defal xéewal incha allah. waa kon sama waa ji gis nga affaire yi reportage bi jaax na neex na am na solo jaar na yoon kon dañuy woo personnel bi rek ak grand bi ñu taxaw dóor benn photo ak ñu jël nañ ci benn séquence mu ndaw rek après ñu daal di tëj. di wax nag sama waa ji Matar mi nga xamante ne moom laa àndal ci liggéey bi yàlla na yàlla yokku télé bi ba mu dem ak dama dem a dem ba romb TFM wala Sen TV wala 2S sa loxo set na macha allah nangu ngaa liggéey am nga jom sama rakk ji yàlla na yàlla defal la jàmm.